aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam sant suñuy ñaari waayjur sant suñuy borom kër ci ndigalu sëñ cheikh di Mokhtar xalif général des Mourides sëñ cheikh Ahmed Tidiane si xalif général des Tidiane AFEX association des femmes pour l'émergence de la cité Senghor mooy organiser première conférence religieuse am fii ci cité Senghor àjjuma 29 juillet 2016 ginnaaw bañ jullee tàkkusaan ba pare thème bi nag jigéen ci këram la ki koy waxtaan moo di oustaz Tafsir Abdourahmane gay yaakaar naa ne ku ko xamul dégg nga ko moo ñuy waxtaanal thème boobu ñu ci woo góor jigéen mag ndaw rawatina suñuy gox bii nga xamante ne fi la ñu dëkk muy quartier cité Senghor bàyyiwuñu kenn ku ko dégg xamal ne mooy sa invitation buñ ci jógee ñu ciy woo suñu oustaz tàmbalee ko ci oustaz Babacar Seck di ci woo oustaz sa gay di ci woo oustaz Mor Gueye Sopp bi bu di ci woo suñuy imam tàmbalee ko ci imam Ahmed Niang di ci woo imaam Fejoor imaam Talla Ndiaye di ci woo imaam Fejoor buñ jógee ci loolu ñu ngi ciy woo suñuy euh, responsable politique di di suñu responsable politique monsieur Thierno Alassane Sall ministre de l'énergie di ci woo monsieur Abdou Mbow député à l'Assemblée nationale di ci woo Maodo Malick Mbaye mouvement gëm sa bopp di ci woo monsieur le maire de la commune de Thiès ville monsieur Talla Sylla di ci woo monsieur le maire de la commune de Thiès Est suñu suñu maire bopp boobu di Pape Bassiri bu Diop di ci woo monsieur le maire de la commune de Thiès Ouest di ci woo monsieur le maire de la commune de Thiès Nord Lamine Diallo buñ di ci woo monsieur Cheikh Tidiane Lo premier adjoint au maire de la commune de Thiès Est di ci woo Ajaratu Assou Diène deuxième adjoint au maire de la commune de Thiès Est di ci woo suñu première marraine bi nga xam ne moo di Khady Cissé ñu présidente groupe Réseau Plus te moo bi nga xamante ne moo ñu boot buñ ci jógee di ci woo Assou association des mamans de Sadbou samp ñu ngi woo Ajaratu Khoudia Sall sage femme fii ci euh, Sampaate buñ jógee ci loolu ñu ngi woo Fatmata Ndaw responsable politique buñ jógee ci loolu ñu ngi woo Pambay Silla Pam Mbay Sall suñu chef de quartier di ci woo sëñ Maxtaar Silla di ci woo monsieur Pape Siré Dia responsable politique di ci woo monsieur Alioune Diouf responsable politique di ci woo monsieur Babacar Socé Ndiaye opérateur poli euh, économique fii ci cité Senghor di ci woo monsieur Dan Fall commerçant ca marché centrale ñu ngi woo monsieur Babacar Mbaye Muscade responsable politique ci jógee ñu ngi woo monsieur Lamine Ngom président ASC Espoir fii ci cité Senghor bu ci jógee ñu ngi woo monsieur Yoro Dem commerçant fii ci marché Xelkom ñu ngi ciy woo Chérif Diop bi nekk Thiès ville mairie Thiès ville di ci woo Cheikh Sey cochaise ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ku ko dégg xamal ne AFEX moo woote première édition conférence religieuse na ngeen ñi ñëw wuy si ñu ñun ñëpp ñu waxtaan ndax thème bu intéressant la ñuy waxtaan wasalaam